Touba ca kanam wajalilaay maskani Touba baat misras mi abijaayi xayri manabaat Touba ca kanam wajalilaay maskani Touba baat misras mi abijaayi xayri manabaat Touba ca kanam wajalilaay maskani Touba baat ahousubillahi min asheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xayra xadimihi wa ummatihi wa sallama taslima inni bi abdillahi ashariyu xaqidatan walfiqhu malikiyu tariqatu lxadimi si nahji lxawim tariqati hada siratu mustaqim wa innani xadimu xadimu rasul wa tilka simmatun biha arju lusul asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ñoo ngi leen di siyaare te di leen baalu te di leen baalu àq yi nga xam ne ñoo ngi ñuy suivre ci Touba Monde bi TV ak Touba euh, ak fu ñu di nekk ci àdduna ñoo ngi leen di siyaare te di leen baalu te di leen baalu te di leen ndokkeel ci weeru tedd wu màgg wi nga xam ne ci lañ nekk muy weeru Cheikhul Khadim radiyallahu anhu di weeru yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye di leen ndokkeel ci bis bu tedd bu màgg bi nga xam ne ci lañ nekk muy bis bi nga xam ne yaakaar naa tuur wi rek doy na doy na doy na doy na doy na doy na doy Touba ca kanam loolu moom ku demoon àjjana it mënuñu faa woote bis bu uh, bu weesu loolu Touba ca kanam loolu moom ko li sëñ bi la daan wax ne sëñ bi li mu wax wala mu boo ko bindoon boo joti woon lawful mahfus it loola nga fay fekk waaye Touba ca kanam moom ku demoon lawful mahfus it loolu rek nga fay fekk kon ñoo ngi leen ci ndokkeel ci bis bi ni ngeen ko xamee Touba ca kanam ba mu jugee ba léegi ci ay tànkam ci ab doxam lépp moo ngi jëm ci rek bëggug Serigne Touba gi nga xam ne moom la amoon ci kaw suuf bu fekkee xamoon nañ lu mu bëggoon ginnaaw yàlla ak yonente bi ak alquranul karim ci dëkk Touba lay doon bëgg googu yi nag ba Touba kanam ca kanam jugee ba léegi la mu fas yéene mooy fexe ba lu koy jagal lu koy sottal lu koy taaral ndax xam nga ne dëkk boo bii ñuy wax Touba Serigne bi daf ko fonkoon ñakk yemul ci fonk gi waaye bëggugum ko bëggoon àggoon na ci euh, da daan wax ne cat da ko cee jàpp ngir ne juróom at dong la fa ba dëkk suñ borom daat koy jëlee. ñu xaraamal ci moom mu nekkaat fa ci li ak dundam ba nim fi jugee dëkkaat fa waaye fonk gum ko fonkoon li muy nekk ci géej géej yëpp gis ngeen muy wax ne suñ borom nag ma delloo Touba warut dani shari'an ila Touba eh, yasir ruju'i li Touba da ngay seetlu ne wu xasida woo xool ci xasida géej gi daanaka day wax rek ne suñ borom nag ma delloo nang ma delloo Touba ngir yàkkamti gum ko yàkkamti woon xam nga ni Cheikh Mamadou Bachir indi na ci minanul baaxil xadim wax ne. sëriñ bi wax na ñaari dëkk yooyu muy Touba ak Darou Salaam tax ñu gënal ko yeneen dëkk yi mooy ne sanc gi mu leen sanc da koo sanc rek ngir jëmmi yàlla mooy ne du ceegi na ab nawet ab tool yu barkeel wala dëkk bu maam ay maam santoon mu di ko kii moo taxoon waaye da koo sanc rek ngir jëmmi yàlla moo tax euh, sëriñ bi wax ne Cheikh Mamadou Bassi wax ne sëñ bi nee na looloo tax Touba ak Darou Salaam gënal ko ci dëkk yi gis nañ ci doaawul kabir sax fu muy waxee boromam di ko xamal ne ko yaa ma wommat ba yóbbu ne ko gis nga ne yéene ji amoon ci def li yonente bi alayhi salaatu salaam defoon muy gàddaay moom la ko yàlla defal ci Touba gis nga ci xasida ak Matlabul Fawzayni muy wax ne amri muhaajiran limaa kaa mooy wax xamal le ne Touba dafa ji dafa dafa gàddaay ni yonente bi alayhi salaatu salaam gàddaay woon dem Madina noonu la def ci Touba. du ma guddal ci loolu ñun ñëpp xam nañ ni sëriñ bi fonke woon Touba nga xam ne mooy dëkk boo xam ne wax nañ ne daan na wax ne fii laay bés penc di taxawee te loolu ci wax ji mu wax ne xulubu sawil adwaani siixat li gayrina ka abdaanihim wallahu lii maskani yubqi mooy ne sama dëkk bii da koy desal kon des gi muy des mooy tax yow yow mal xiyaam ñu mën na wax ne fa lay taxawee daan na wax ne ñaari bunt ñoo am ci kaw suuf ci leerug yàlla ci asamaan benn bi moo tim Touba benn bi moo nga ca Kaaba ga am na ci nettali boo xam ne sax daa wax ne benn la ngir li mu wax ne Touba xëy na li mu wax ne Kaaba ga dañ koy wommat mu ñëw Touba kon Touba noonu la meloon ci moom. boo ko masaana tudd day bég day day day day day da koy fonk ku masaana wax lu jëm ci Touba sax mag ñi xamoon nañ ko ci kon bëgg gum ko bëgg wax nañ ñi ko daan nuyu sax ñi njëkk a jóge Touba lay njëkk a laaj kon loolu day wane rek ni mu fonke woon Touba ginnaaw lool lépp nag wane gi mu wane fonk Touba ay mbokki taalibe yi nii ñoo xam ne bañ jugee Touba ca kanam jugee ba léegi ñoo ci dugg Touba ca kanam moom li Cheikh Mamadou Mountakha wax leer na wane Touba ca kanam ku koy jéem a dox ca kanam rek ngay jëm ndax Touba liggéey buñ sottal la ba pare kooku moom Sëñ Tuubaa daa bokk ci liggéey yi nga xam ne da koo garanti digganteem ak boromam mooy ne da koo ñaan ba yàlla may ko ko gis nga ci xëy rek man lu fasee day wax ne Touba almahrusa mooy na xurum la joo xam ne dañ koo aar ba pare li mu ci bëgg am na ko ba pare mbokk yi nag bañ ba léegi ci lu jëmee Touba ca kanam loom xam naa dañuy tàmbalee ci ñoom rek liñ bëgg rek mooy soññee ci lu jëm ci liggéey Seexul Xadim bi niñ ko waxee mooy nga xam ne Touba ca kanam mais may waxee ne tur wi boo demoon lawhul mahfuz it moom nga fay fekk mooy ne Touba ca kanam moom euh, Touba ca kanam moom lu yàlla signeel Cheikhul Khadim la ba pare mooy la luy am la kon na xëy na soññee lay doon ngir taalibe yi nuñ ci jàppee gën a liggéey bi gën a xam liggéey bi doxu Touba ca kanam te xam ne ku ci def yaay jëm ca kanam waaye Touba moom dem na ca kanam ba pare kon bisimilah sëriñ Mout Tall. bisimilahi rahmaani rahiim alhamdulilahi rabil aalamiin rahmaani rahiim maliki yawmi diin. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin ihdina siraatal mustaqiima siraatal an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala daalliin amin bokki jullit yi bokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatoo noo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen siyaare bu baax di leen balaaq te di leen baluwaaq di ñaan saa borom boole nu jéggal te boole nu dimbali bi barke seel di jiital ci nuyoo bi ak cant yeeg siyaare yi sëriñ Muntaxa Mbàkke di ñaan mu yàgg Touba mont bi fii ci bis bu màgg bi nga xam ne mooy premier décembre di bisub Touba kanam di bis boo xam ne dara tàmbali ba ci jeexeetal bi dara nekku ci rek lu dul fas yéene liggéey sëñ Touba ci Touba te sëñ bi sànq rek nga wax ne yasiru join li Touba wax mi ni waxee nii asal wara wal tubli sàmm iskaana loolu moom sëriñ bee ko doon wax jamono bi nga xam ne si yàlla dafa dogal mu nekk ci bitti di wax ak euh, di ñaan boromam ngir dellusiwaat ca Touba ma jàpp loolu mooy sunu bëgg ndax nun Touba lañ juddoo fa lañ yaroo kon day mel na nun suñ mbir yëpp mi ngi war a nekk ci lépp lu nu sëñ rek ñu fas yéene mu des ci biir ndax day béréb boo xam ne kenn ku ci nekk foo mën a nekk sa yéene tey ak ëllëg sa yaakaar tey ak ëllëg weesuwul suufu Touba te sëriñ bi mas naa wax mag ñi na leen li ma yéene sama taalibe bu def Touba ana man kan moo ma ko mënal ci fere yi ñëpp na tekk sëriñ Siré ma nekk ca barsàq moo ko tontu na ko mën naa ko sëñ bi daa ree ba fab kaala gi te ko ci gémmiñ gi ne waaye nag suufu Touba nee na ma mënal na ma ko kon jàpp naa ne loolee sama mbokk ma xoon ku ñuy wax bàyyi sëriñ gi raay mu sedd dafa am doom tudde ko sëriñ Touba amaat jeneen doom daal di ko wax ñu am ku dey na ko daa mel ne ki mu ki mu gën a àdduna sëñ Touba nga ko tudde woon mu ne ko kooku sëñ Touba laa ko tudde waaye kii Touba gii laa ko tudde ndax sama teg sama ëllëg Touba rek la kon yaakaar naa ne kooku bu fekk woon tey ji ñuy woote liggéey sëñ Touba ci Touba yaakaar naa kenn du ko ci man te boobu moom déggoon na loola kooku xamoon na màggug Touba xamoon na teddug Touba xamoon na kawek Touba xamoon na ni mu toll ci sëñ ba tax mu jàpp ne ci ay takkandeeram sax daa war a jël ci ay takkandeeram tuddee ko suufu Touba ah noonu la ko defee kon yaakaar naa noonu suñu yitte yëpp moo war a nekk ci lan mooy taaral Touba lan mooy yokk Touba lan mooy tax Touba mën a wuuteeg dëkk yëpp ndax mislasmiha la Sëriñ Touba wax mislasmiha nag dafa xajul fii xajul ci addina waaye liy wane ne mislasmiha am na mooy dadul yam ak benn dëkk loolooy tax ñu xam ne mislasmiha am na kon nag noo ngi leen sant bu baax di leen gërëm di ci soññi taaliba yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf am na solo lool loolu nga ci mbokk mu nga ci wax loolu pësteef dëgg la mooy ne am doom tudde ko Touba waaye loolu mat na ko ndax comme sëñ Tuubaa moo ko tuddi Tuubaa ga ca àjjana mat na ko te ñaan suñ borom def ko mu mel ne turandoom ba loolu mat la mel ne soññoo bi am na solo lool day dellu rek ci ne tuuba rawatina mel ne ne liñ ciy jàngee mooy ne ñi nga xam ne yàlla da leen a defal taw feex yi ñu dëkk Touba loolu xalifa bu fi mas fi mujj mi fi nekk euh, déclaration bi mu njëkkee def euh, diskuur ba mu ca bind yaakaar naa kenn ku ne dégg nga wax jam wax ci ñi dëkk Touba fàttali leen taw feex ji ñaam ci sëriñ bi dëkk ak Serigne Touba yombul loolu taw feex la ju yàllay defal doomu aadama taw feex dëkk ak Serigne Touba taw feex la ju yàllay defal doomu aadama eh, ñi ko yàlla defal nag mel na ne kon ñoom ñoo war a jiitu ci liggéey bi rawatina nag sama classe gi nga xam ne fa lañ juddoo yaroo fa ñoom ndax juddoo Touba bokkut ak juddoo ci beneen dëkk de loolu taw feex la yit moom itam joo xam ne day dolliku ci taw feex ji ñu am ci Serigne Touba rawatina nag dëkk fa dëkk ak Serigne Touba gis nañ ci xasida yi sax foo xam ne day ñaan ne yàlla moo ko musal ci sawaraam musal ci ñi dëkk ak moom dëkk ak Serigne Touba gis nañ ci téere Serigne Alhaaji Mbakke yi muy wax ne fanaan fi génn guddi yëmut ak fanaan junniy guddi fanaan maanaam guddi goo fi fanaanee rek rawe nga ko ka ko fanaanul jaamu yàlla goo fa defee it bokkut ak geneen jaamu yàlla goo def foofu loolu mel na ne Touba dara jaam ak ak ak barkeem ndax ni ko sëñ bi fonke woon rek moo ñuy xamal loolu nga xam ne moom lu ko yàlla jagleel la kon mel na ne soññee bi moo ngi jëm ci mbokk yi ñoo xam ne rawatina ñi yàlla defal taw tawféex ñu dëkk Touba wala ñu juddoo fa ndax dëkk boo juddoo wala nga yaroo fa rek am na lu mu la defal njukkal loo war a delloo dëkk ba rawatina nag dëkk Touba loolu moom daa nuru lu woyofaay woyoful dëkk Touba dëkk ak Cheikhul Khadim radiyallahu anhu wardahu loolu daa nuru lu woyof waaye woyoful euh, dafa am nettali bu sëñ Alaaji Mbàkke di nettali ci téere mi ba yi moo wax ne euh, biñ fi fanaanee sëñ ma ndumbe Eh, sëñ bi da daa mas a yónni suñu daam ay ay ay xal ci fajar goo xam ne dañ faa fanaan bi ñuy léemu ndax soxna Fatou moo nettali nettali bi biñ koy leemu ci gàttalu nettali bi rek ay pël yu fa nekkoon fa lañ wute woon xal xal ya biñ jiwee ci pël ya sëñ bi ne may pël yi jaar fa may leenum soo ñu naan ko ba pare sëñ bi ree ne leen pël yooyu xam ngeen ñan lañ ay cëgg lañu cëgg nag suñu daa ne ay addu kalpe lañ dal waaye pël yi dañoo mooy ñi nga xam ne addu kalbe yoo xam ne dañuy ray nit nangu alal jenjoor nag yañ yor ba may leen sooma ci al ali nagi jàmboor la ñu rey sëñ bi ne leen pël yi ba li feek ñuy faatu ñoom seen alal jooju di raaf duñ lu laal ci ñoom du dem sawara yaramam xaraam na sawara daan ne leen xam ngeen li tax fanaan giñ fanaan ak ñun tey fii ahlu badar da leen a wër ba fajar suñ jubaa da waxoon ne boromam moo tënk ahlu badar ci tuubaa moo leen tënk ci barab boobu yi mu nekk du leen fi yeew yu ba yomal xiyam nga xam ne ahlu badar ñoo ngi Touba loolu yi moo tax ma wax ne dëkk tuuba ak fanaan fa wala juddoo fa yaroo fa loolu taw féex la ju yàlla defal doomu aadama kuñ ko defal nag war nga koo xam am na lu ñu war kon ñun suñu diggante bu du doon sëriñ bi dëkk ba daa am lu ñu ci war kon loolu mel leen Touba ci kanam ñoo ngi ci dox suñ muudi ñoo ngi sant yàlla bu baax ñoo ngi sant bu baax di sant bu baax ci soñe bi am na solo lool luñ ciy déggee bari na bind yu bari manees na ko cee jànge kon xam naa dañuy dem ci suñu bay sëriñ Abdou Khadir moom itam di jëwriñ ci liggéey bi mu soññi ci mbokk yi nga xam ne nag dañoo nekk ci bitti te bëgg a jàpp war a jàpp ci liggéeyu Touba ni ñu ko waxee Touba yi xam nga ne yaakaar yi murid bu ne moo ngi Touba suufu Touba la. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim eh, jërëjëf sang bi. xam naa nu sukkandiku rekk ci kàdduy sunu jëwriñ ju baax ji di porte parole ca kanam ca Italie tañ tofal nu ci moom doon ca waxewun ci xam-xamit nu waxe ci pas-pas ak ci tànn ci sëñ Touba jum tànn ci bi yontu yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam tànnee ba pare joxoñ Cheikh Ahmadou Bamba ni ko tànnal ci mbooloo mi xam naa bu doon ci suñ jamonoy tey Modou Tall day jàpp ni damaa war a dem ca fa mu tànnee ba pare ma tànn ca loola waaye sëñ Touba ca mat ga ak ca xër ga ak bëgg gu baax mu dem ca la Moustapha tànn di tànn ca loola loolee mu tànn nag ca la nu tànn nun ñi toog fii ñëpp ba mu nu ca tànn Cheikh Mouhamadul Bachir ni ko ki nga xam ni dafa ñàkkëram ba mu sangewu mu wurmbal ko ba mu kawe te kuy dugg ca biir moo lay yëkkati dugal la ca biir loo ko bëgg-bëgg te tànnu la doo ca dugg kon nu xam ne loolu itam ak jagleel la goo xam ne ci nun sëriñ Tuubaa nu tànnal boppam euh, Baye Daam Njaay mu baax ma daana ko wax naan barigo bi de dañoo def diw gi ci biir man nga koo bérëng fu la neex waaye borom bi diw gi moom fu barigo bi man di jaar diw gi du yàqu lu man di dem itam mën na ñoo jël ndox mu tàng di ko ci raxas ci kaw barigo bi waaye li ci biir diw gi moom borom diw gi moom dana jaaroo wañu diw kon nun fu man di jaar te te du noona nan xam ne noo fa jëbal suñu bopp di fa jaar waaye sëñ Tuubaa moom li nga xam ne moom la soxla ci man nun moom bala nu ko fekk daanu ko de daanu ko mel kon nanuy jaar fi nu war a jaar di def li war a def nu ñëw nañ ci Tuubaa ca kanam muy denc boo xam ni yàllaa ko dencalan ñoo xam ni da leen koo dencalan la sëñ Moustapha Saliou waxan ni liggéeyub sëriñ Tuubaa bi dafa mel ni sori rabal yoo xam ne dañ koo dugal ci ak gaal kenn ku ñëw ak la nga xam ni gaal googa ca sor woowa nga yëkkati feeñ na ci Touba ca kanam feeñ na ci université bii ñu war a tàmbali ndax man de université bi wax naa leen di leen Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum yal na ko suñu borom dolli leer kere ba mu njëkkee sukk ci plan bi ba mu ñëwee gane si sëñ Abdoulaye gane ñetti fan nga sukk ci plan ba ca suba sa laa fa ñëw ñu wan ma plan bi ni ma fii de heure bi dem Cheikh Tidiane sëkku na fi kon jàppoon nan ni du fi nekk ba nëgën di xaar sëñ Mountakha kon mooy sor rabal woowu Touba ca kanam itam lu ne waxees na ko fi te Touba ca kanam baat bi xoolal ni mu yombe ak ni mu diise ak ni mu amee maanaa ak woote bi ni mu yoomee woote ak ni mu yomb a wujjee ku ne wax ci ba ñuy wax ni ñoo ko taxawal sax dañ doon dox di wëreelu ba yegg ci sëñ abi bu doon bëgg mu jëlu ñax ñaqam def ko ci li ñuy laaj mu leen man dama am beneen xalaat moo ne yàlla mën na ko jagleel sëñ aboom sëñ fàllu de waaye sëñ abibu ci la ko yàlla jaarale nga xam ne sëriñ bi kenn ku ne lam war a def ak lam war a am sëñ abibu daal ne man de ñaari millions ngi murit laa soxla yoo xëy murit bu ne damay jox 1000 francs par ba mu ko yëkkatee yaakaar naa kenn ku ne fa nga nekk yaa ci yëg yëngal lëg la nga yëg ba dugal ci sa bopp liggéey bi sax léeg-léeg nga dégg ci réew mi ni jëwriñ yi dugguñ ci liggéey bi waaye jëwriñ bu dox rek la xam liggéey bi dafa ñëw heure boo xam ñi mu fi ñoo jël liggéey bi téye ko liggéey bi sëñ Tuubaa bi nag am na woote waaye amul ndege da ngay woote te ne ca yoon wa boo ko defee foo jaan ñu fekk la ci yoon wi kon nun ñi nga xam ni nun lañ wax ni nun diñu adressé ni noo jiite Tuubaa ca kanam di ci siyaar sama jëwriñ ji bu baax Baye Massamba Niang mi ak Baye Malick Fall mii Baye Malick Ndonga mii maanaam nun bu fekkente ni dem nañ ba ñun nit ñi nanguluñ Touba ca kanam nañ seetaat suñu bopp Touba ca kanam kenn du ko dégg di ko gàntul kon ka nga xam ne mooy taxawee Touba ca kanam moo mënees na ko gàntul waaye kenn du gàntul Touba ca kanam kon nun ci suñu bopp nan ne ca yoon wa te soññe lii matal mboo liy matal ñaari millions yi mu yi nag du ci nun li yóbbu mbooloo mi jëm du ci nun ndax danaa koy wax baa àll yu kat ni ko ñun dong yi dañoo mel ni buusal ci ak foo ko mën di orienté itam xeb la rek lay jël doo ngay sëñ nag noonu lañ mel léeg-léeg nga seex ku bëgg a jàddal boppam waaye du mën a jàdd ndax sëñ bee bëgg mu def année kon nag euh, du nu mën a guddal ndax ci ni yëf yi toll waaye jéew yi yéen ñu yëkkati sunu kàddu rek nuy soññ sunu bopp rawatina gox bi ñu féete di Emilia Romagna rawatina Bologna ga nga xam ne fa la nu dëkk di soññ képp tout tànk gu ma fa nekkal nga xam ne dinaa leen wax ne ñun bu fekkee ñun ñoo doon dox ca tawféexul aadi di dox ca matlabu faw sëy ni ba toll fi ñu toll xam ngeen ni nun ku man itam tëlee ngi ñëw ci ñun mën na noo nuru ay gone mën na noo def lu ne waaye am réew mënoo faa dem fanweeri at mënoo ko faa def sa doom nekk fa tolloog yow ngéen di ànd dox yitte ngay mën a doxalal ti yenn yi li ñu war a def def nañ ko taxawal li ñu war a taxawal yéen ñii nag yéen nga xam yéen a war a doon relais bi yen yéen a war a takku nag bu baax a baax fas yéen a bi ngeen jël ko la sëñ Tuubaa waxam ne sama tey ju ne day gàcceel sama démb tey ji gàcceel dem te fekk fi seen i waajur loola day neex ci ñoom lool nangeen xam ne bu liggéey bi desee ginnaaw kenn du sikk mag ñi yéen ndaw ñi la ñuy sikk kon nag fu ndaw nekk ci réew mi na nga xam ni liggéey bi sab liggéeya rawatina nag diiwaanu Italie Italie dey man sëñ Abdou Khadir laa sukk fi moom di ko tàggu mun ma fooy dem ma ni ko itali mun ma yaakaaru na waaw yaakaaru na kon nag lu am réew la moo xam ne yaakaaroom gii mu yaakaaru bu nu defee ni ci nun la man gii mu fi man ci liggéey sëñ bu nu jaakaar ñu sëñ Tuubaa moo bëgg damay wax toujours mën leen Touba Mbacke ku bëgg ko ku bañ alal jóge ital ci lañ ko sëriñ Touba murid sëñ Touba yi ñoo fi ñëw. tey sax nga def ku dem ba ñàkkal boppam fayda jàpp ni dafa bëggul Ndakaar wala bëggul dafa bëggul dara Ndakaaru sëriñ Touba la namm kooku ñëw Touba indi fa alal ji lii mooy taalibe sëriñ Touba yi. kon bu nu demee ba Touba ca kanam taxawee mel nii liggéey bu ne jaar fi murid yi yàkkamti ko mu ñëw nit ñëpp aw ko mu def fi at genn wàll liggéey ñeent ñeenti centre de santé yoo xam ne teg na ci seen bët oto yi mu yóbboon bi ñuy bëgg a màggal ak oto mbalit yi ak liggéey yu rëy yi mu sumb jàpp naa ni képp koo xam ne sii am nga dara dara loo yëg ci Serigne Touba war ngaa jàpp ni liggéey bi yow sa liggéeyu bopp la kon sang bi ñoo ngi lay jéggalu baax waaye du ñu mën a bañ a jaajëfal ñaari jëfandukaay yi fi teew muy rajo xasida online Touba Monde bi ak rajo Touba Zingonia man la 19 janvier 2017 laa jëkk a def émission ci rajo Touba Zingoña ak sëñ Fallou Ndiaye bi jiite Touba ca kanam ak euh, sëñ Soye Bouridouane ak sëñ Moustapha Mbacke mi nekk Rome. Euh, le 26 janvier del ci ma del alxames ma ma tollatiwaat beneen réunion beneen beneen beneen beneen programme beneen euh, diwaanul Mouride war Mouride al ngoonu alxemes kon bagage yi dafa tasanteeg sëriñ Touba su fekkante ne bagage la boo xam ne luñ ci def dañ koy fay 30 minutes rek buñ ko ci fayee def ci alal ju dul jeex. kon Serigne Touba mbiram mu nekk mooy wutal boppam ya nga xam ne ñoo ko saytu sàkk Abdou Khoudous Diop mu nekk Pawiya doon koo xam ne bu waxee ñëpp déglu ko mu jàpp ni ci moom la fekk Serigne Touba moo ko joxañ jëwri yi nga gis fii yëpp kuñ fi bind ciw kayit amul kenn lañ fi bindul ciw kayit Baye Massamba Niang mi foo ko wax ci tubaa ma porte boo duggul boo ne Baye Massamba Niang mën na ko ubbi te bu doon xam-xam du moom bu doon leneen doon am am du loola waaye Serigne Touba la namm mooy seet ka ko neex mu jël ko ni kii moom laa bëgg mu liggéeyal ma kon daal sëñ bi noo ngi jéggalu bu fekkee kàddu yi gudd na di siyaar bu baax di balu ak ndax ku waxewul ci xam-xam da ngay waxe fi sam xel tollu rek te itam comme dem nañ ba yàgg liñ lu yàgg ci njaw di njaw yàgg nañ ci murit yi ba nga xam ne léegi sañ nañoo taxaw ni magum murit lañu doon ca kanam gi nuru na nuru na kanamu xale waaye sañ nañu ni magum murit lañu ndax ab jataay boo fa nekkee ña nga fa mag ëpp ña nga xam ne ñoo ñoo la mag mënatoo doon gone am réew tam ndax fa naa ne mënoo faa def fanweeri at doon gone kon noo ngi bu baax di ñaan lu ñu fi wax rek yal nañ njëriñ loo xam ni day tàmbaleetu ñun ba yegg ci ñëpp ci barke Serigne Touba di wax waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatu jërë ngeen jëf nee na soññe bi am na am na solo lool lool sax bari na bind yi ci nekk yoo xam ne ci domaine yu bari dugg nga ci dugg nga ci domaine ëpp ñi jiite Touba ci kanam ci boppam nga xam ne ñooy responsabilité mbir mi ñoom ñoom la ko sëñ Touba euh, li ñuy wax karikaare ñu gàdd ko ci seen loos loola la euh, borom xam ba waxoon euh, Omar ibn Abdul Aziz ah, Haruna Rachid lam ko waxoon ne ko yow yaa gàddu li jullit ñi amee lépp ñu ne yaay amirul muminin li nga gàddu réy na de mu ne téq a tàmbalee jooy loolu yi kuñ jiital ci liggéey bi suñ tubaab bu mën a doon responsabilité boobu war nga koo yëg li suñ Mamoor di wax toujours ne responsabilité la gën a doon ci pouvoir ah, mbokki taali taaliba yëpp seenu ñaq wala seeni yaakaar ñu gàdd ko ci sawloos ku xam taalibe suñ tubaab ni ni mu fonkeeb taalibeem kooku da nga responsabilité la gën a doon ci yow ngay gën a tiit kon soññee bi jëm na soññe boo leen soññi ci liggéeyub Sëriñ Tuubaa bi ne mag ñi daa am tawfeex ju leen yàlla defal joo xam ne ñoom seen tawfeex yi bopp la ni nga xam ne ni la mag ñi saaba ya amee woon tawfeex yi fekk fi yonente bi ni la mag ñi amee tawfeex yi fekkee Sëriñ Tuubaa yéen ñii ngeen amee tawfeex yi fekkente fekk njabootu Sëriñ Tuubaa gisanteeg ñoom jaxasoog ñoom bokk ñoom lépp loolu daa loo xam ne boo jëful dara it loolu rek fekk di jàkkaaroog ñoom ñu lay xool ñu lay xool am na lu mu la may ñun nag ñu mel ne dañoo mujjee ñëw jamono nekk ci jamono ju jaxasoo ju doy waar yooyu yëpp fekkuñu ci ak donte sëriñ bi moom la ko sëñ Amsatu joxoon ne na kon mag ñi doyal nañ defal ci ndaw ñi mu ne ko damaa ci ñoom ba noppi doog a ñëw ci yéen damaa njëkkee ci ñoom doo a ñëw ci yéen waaye nag am na tawfeex joo xam ne moom loolu sensu yàlla la bu mu defal mooy jàkkaarug bëtam yooyu di jàkkaarug bëti ñooñee loolu moom ku ko fekkiwul jamono rek mënoo ko am raw na la waaye ndaw ñi soññ nga leen mu muy ne liggéeyub Serigne Touba bii nga xam ne mag ñi def nañ ci liñ ci war a def ba mu toll fii mu toll ñun de mel na ne li ñu war moo gën a yomb ñoom li ñu defoon ndax taxawal ñoom la ñu waroon a def sàmm gi nag Cheikhul Khadim a ko yor waaye nag téewul am ci lu ñu war ñun téewul am loo xam ne war nañu ci sàmm liggéeyub Serigne bi mel na ne kon buñ fexee buñ bàyyee xel ne jamono lëj na taxaway na waaye nag ñoo ngi yore loo xam ne li gën a sell ci àdduna gën ci te mooy Cheikhul Khadim ñu war koo joxe war koo wane jaareele ko ci anam yu ne ñun war nañoo bàyyi suñ xel suñu bopp ba pare kon foofu yi soññee nga ci bu baax a baax soññiwaan mag ñi soññi nga xale yi soññ mag ñi daal soññi yi ñu yore liggéey bi kon ñoo ngi sant bu baax ci kàddu yi dañuy ñëw ci suñu jëwriin Baye Malick Ndonga nga xam ne moom day wax ne moom ci ndaw ñi la bokk ak donte moom mooy mag yu murid yi waaye ci ndaw ñi la bëgg a boole boppam di lépp rek daanaka mel ne am sëñ sëñ sëñ mat jaw paxa wala wala wala Cheikh Ibra ni mu xéer woon ci sëñ ba nga xam ne mës ta nangoo bàyyeekuy liggéeyal sëriñ bi waaye moom it daanaka foofu fi ne foo ko fekk loolu lay bëgg daal di def ñu ñëw ko rek xam naa danañu ndongatu moom waaye mu ñëw ci soññi ñu ci liggéeyub Serigne Touba bii nga xam ne moom lañ bokk soññi mag ñi soññi mag ñi nga xam ne dem nañ ba àgg mën nañu sax àgg xëy na jafe waaye dem nañ ba àgg waaye ñu bañ a jàpp ne liggéeyub Serigne Touba kenn du ci doyal ndax Serigne Touba daan na wax ne yàlla foo ci yam yaa ci yamale sa bopp foo ci àgg rek lu gën a rëy ngi ci sa kanam kon soññi mag ñi waaye sooñ soññi ndaw ñi surtout ndaw ñi nga xam ne ñoo féete fii ci gox yi nga xam ne ci lañ nekk di yëngu ci liggéey bi Sëñ Tuubaa moo xam ci xasiida yi le moo xam ci waañ yi li ñuy yëngutu moo xam dañuy takk seen laxasaay di ci lu mën a yëngutu rek ci liggéeyu Tuubaa ca kanam bismillah ñu ma bokkal plateau bi ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di tuub nag ndax wax dëgg yàlla yéen ñi toog fii ma bokk toog ak yéen moom yëkkati kàddu waruma ndax man ab jaam jaamaatu ceerno rek la ah di ñaan sëñ Abbas yàgg bi li di ñaan sëñ Muntaxa yàgg ci sunu kanam te wér te ñun dongo yi sëñ yii ak ceerno yi ñu yàgg ci ginnaaw sëriñ bi te wér te sëriñ bi def ci poos yi itam lu mën a yore njaboot gi ak liggéeyub sëriñ bi ci barke maam Ceerno xam naa tudd nga fi ñett yoo xam ni benn bu ci ne rek man wax dëgg yàlla bég na sama xol muy soññ dong ci liggéeyub sëñ Bamba ak soññ tut tànk yi ci liggéeyub sëñ Tuubaa eh, dama koy tàmbalee ci ñi ëpp ci ñiy jàng xaside yi dama leen di wax ni leen bu leen durus ba neex baat ba defe ni yéen a fi man ñu leen dàq durus a toog ci seen wet di durus loo ëpp li ngeen di durus te bëgguñu ku leen xam te bëgguñoo siggi gis kenn gis leen ñeneen ñi ci des mooy ñiy takk laxasaa yi di nekk ci liggéey si kër sëriñ sama classe gii bu sëriñ bi xew lee wala mu woote ñu takk laxasaay ku nekk defe ni ñu ne te duñu dara ñay def dañu ni tekk ànd ak dal duñu ñeppi seen gémmiñ di jëf muy yegg directement te amul intermédiaire yëf yi maanaam xol la xol la sëñ Bamba li yor da koy jaay waaye nag ñun nan ñaan ceerno mu jox nu njëg ñu ñëw jënd yor def ci suñu poos ndax bu jógee fii ci saal bii tey bu ñu génnee ci biti kenn ku ne taal wataam soo gañee xam nga boo pertee xam nga soo gañee xam nga boo pertee xam nga damay wax gars yi leen daay rëy njiit munu cee ñàkk waaye buñ ci jiital nit ba nga yor béjjinub ginnaaw waaye ki ñu boote tam bu mu matte parce que ki boote bu yor béjjinub ginnaaw ki ñu boot mattewut rogg naay dana mën a jàppandi lool bàyyi dama ni leen làmb leen seen poche jox ma man làmb sans poche ñu boole yët sëñ bi soo amee coow am na ku nar a wor nañu ànd ak xel dong yi Bamba rek lañ gëm ceerno rek lañ gëm fii nii kii nii tey jii bi ñu ne cëpp fii lañu ko woo magam wàññeeku ca Sénégal pourtant bu doon ni ca ñeneen ñi la nag ni di ñibbiwaat na bu yàgg waaye bësante na xolam boo xoolee xar kanam bi sax mënoo koo xam ndax sëñ Bamba dafa am loo xam ne da koy gëm dund ko ku ne la jàkk xam ne yow mi muritu sëñ Bamba nga sëñ Modou Maxtaar daa waxoon ni am murit bu dee dund te bu dee jëm àjjana boo ko nee jàkk da ko war a xam daa war a sol lu rafet yor lu rafet takk jongoma ju rafet di yor daamar ju rafet te nekk ci kawam tax ñun dongi sëñ Bamba lañ àjjana la ñuy dund kuy dund àjjana waroo ragal ñun maam Thierno Ibra Fati moom lañ yaakaar addina moom lañ yaakaar àllaaxira dama ni man maa ngi soññi sama bopp gis nga liggéeyu sëriñ bii ab sag rek a fi ne te sëñ baa ngi nii sagal bu baax ndax fi ne nii ku fi ñëw tey defe ni ñu na barke sëñ Bamba duñ ci dara lépp sëñ bee te pourtant fii ne nii sac bi ku gis Baye Malick Ndongo ma nga wareese Baye Moutal ma nga wareese defe ni Abdou Khoudour Diouf ma nga wareese defe ni def na dara dara defu ko sëñ bi sëñ bi nii sagal rek ku gis Baye Jami tey jii fa mu jógee nga jot gis ka jóge ca ginnaawam jóge Rimini boole ko mbégte moo tax dama ni leen yëf nan santaat sëñ bi te wàññi jooy yi sëñ bi lim nu defal defalu ko kenn ñi ëpp fii ñëpp oto yi bees lañ yor yor banku mat bu ñu génnee takk karawat sol mbasin te gendarme du leen contrôler waaye sëñ bi lu ko fi def dama la ñett ñii ku am passeport ameel nga njukkal soo ko xamee ak boo ko xamul tàllalal sa baaraam sëñ Modou Boussa Dieng yàlla na sëñ Tuubaa doole leeram maam Thierno Cheikh Awa Balla yàlla na yàlla guddal fanam Cheikh Mouhamadou Mourtada yàlla na sëñ Tuubaa doole leeram danaa leen faram fàcceel ñett ñii lu tax sëñ Modou Bousso Dieng ba mu fi ne cëpp réew mi metti ñun ñëpp ay kayit képp lañ ñaanoon tey jii kërug Modou goo dem ay kayit dafa late te pourtant bu doon leneen a mu demee neneen waaye ay kayit lañ gisoon booba fii ne lii di kër goo dem ay kayit rek boo <laughs> muy man muy sa kër goo dem tey ay kayit dafa late yi dégg bu baax li ma leen wax c'est maam Thierno Cheikh Awa Balla bis ba muy julli périal pilo korité dañ ñëwoon maam Thierno bu ne allahu akbar kër gi tas bala ak ma sàmba maam Thierno bi mu ne tëll ak bala maan beeg bi gars yi xamul xamuñu waaye keroog dama leen ne Cheikh Awa Balla ngee ba ñu ne ko fii ngay jullee ma ni dañu man man Cheikh Awa man Cheikh man Cheikh maam Thierno Cheikh Awa Balla Abdoulahan Mbacke yabal ma mooy jullee ci mbaar xalaatuma ko ma ne ko boo ko waxutoon ma xàcc man maam Thierno laa gëm te maam Thierno daa am fit am fulla am fayda keroog bi ñu ubbee stade bi ñu war a dem ci biir pour julli fukki fukki oto yi policier ak juróom-ñetti gendarme ak télévision raay tere ak Italia Uno ak raay ak ak raay bi Idrissa nekkoon ñoo bokkoon nekk foofu keroog sama kanam photo yaa ngeeg man waaye ba maam Thierno ne allahu akbar bi mu ne asalaamaaleykum ba mu daa taan wax asalaamaaleykum ci wet gi ci des gaa yu bari fàq nañ wacc seeni daal ndax kenn ku ci nekk jàpp nga ne boo fi mujjee police ngay fanaani kon tey bu nu demee ba réew mi nuy nuy bu ndaandaat noo xam li tax tey jii xaside yi bu dee jolli këri sëñ Bamba yi jib grâce à Cheikh Mouhamadou dama ne la réew mii ñi fi ñëw yàlla na sëñ Tuubaa dolli leen kattan dolli leen wér waaye li fi metti woon sëñ Abbas daf ni ma woon Malick Ndong ma ne mu ne ma ceer na du saf mbaam saf doom ja ma jàngate ci lu rëy ndax ñoom lu ñu wax lu ne la tax ñu wax ko am na lu tax waaye yéen santaat leen bu baax dañu leen a baleel dindi leen dég yi dindi xaaxaam bi lay ko ba mu set bu leen neexee def tànkum neen di bëringu di daw di wéy barke sëñ kii xam na ci dara xam nga ma léeg-léeg damay li benn xisa jóge naa Pirel Pino dem di jëndi nen nen nen di omelette ndogu carabinieri yi ramassé ma yóbbu ma boo weesoo keroog booy génn da ngay xool ndax nit a ngi fi wala da nga delsi wala doo delsi neen yi ma doon jëndi delsiwu ma ba ma demee police bañ ma jàppee aw ma séjour faux déviat lañ ma bindal multum 700000 bindal ma ko ba noppi ma ne carabinieri bi damaa woor de doo ma may kaasu ndox ma naan mu ne ma oo oh, oo oh, la ma wax ni ma boo bëggee ma may la bi keri nga saw ci naan loolu tey jii boo ko waxoon ñii tey jii duñ la dënduuje tey est-ce que loolu amante na ci réew mi. déedéet nan santaat nan santaat sëñ Bamba nooyal na lépp nooyal na lépp barki borom Daaru Musti man nag kon euh, bëgguma wax ji gudd ndax buñ ko toppee day neex ba mëpp te maanaam li nu li nu xajul ci guddi waxuma ak nag ci ngoon tey ñaanal nag sëriñ bi sëñ Astak sëñ Bamba dëbb ko kattan dëbb ko wér te muy ànd lii mu sombe ñu ne yàlla ko sëñ Tuubaa defaral muy lu kawe ci barki borom Daaru Musti euh, soxna si nga xamante ne tam bis bi moom moo ko daan def ba sëriñ bi maanaam dugalaale lu ci biir géej gi yàlla na fi yàgg te wér. soxna ndax soxna Astou ndax lu jig njaaga te mooy njaag kon la bi keroog keroog bi soxna si wootee Amérique euh, war na màggali la lazim fekk maa ngi sama biir mbàjj barke sëñ Touba damaa jóg am lu ma yëg man man li ma yëg sëñ Fallou woote màggalu Touba ngir yaatal sëñ Fallou woote màggalu Touba ngir yaatal ngir xettali jaam ñi sëriñ bi dellu woote waat tey ji Touba ca kanam fii ngir xettali waat jaam ñi kon santal yàlla man tey ji gis naa ñoo xam ne yàlla mii ma tiim xam na ne damay déggante ak ñoom musuñoo gisante musumaa gisante ak ñoom ñu bëgg ma nag ngir sëñ Bamba te xamuñu ma te fi ne nii li coow li di bari bari ku ma ci toppoon léegi nii tey juróomi jéego ñu génn ci buntu kër bi nga bàyyi nga xam ni kon nan xoolante sëñ bamba rek sëñ bamba rek a fi ne maa ngi jégalu di leen jégalu yéen itam ndax samay kilifa ngeen te wax dëgg yàlla toogaay bi yàgg na te li may wax teguma ko ci euh, xam-xam waaye nag daa koo fekke oh. daa koo fekke loolooy xam-xam dañ ko fekk ca France mu ni Baye Abdou ni ko réew ma danaa metti ndax boos yi day moo fa nekk te daal danoo lool mu ne waaw Italie da la fa ne sëñ Bamba ko fàggul boppam Italie la fa ne sëñ Bamba ko fa fàggu su ngeen demee ñetti kaamil alxuraan sëñ laay wax de ñetti kaamil alxuraan yooyu ci la seen aaju fajo faju addina ci la seen aaju ji faju àllaat asalaamaaleykum wa rahmatulah macha allah Baye Malick waxoon naa leen ko xam na moom moom bu duggee bu soññee rek gis ko gis ngeen mel ne bi nga xam ne soññee na ko ci soññee ba am solo boo xam ne matale na ci côté yëpp waaye euh, soññiwaat nga ndaw ñi ba noppi nag joxaat leen ba beneen responsabilité mooy fàttali nga leen démb avant ak liñ war a def tey mu mel ni suñ mu taxaar yi wax ne léegi comme lépp jàppandi na xéewal yi am na bale nañ ba pare bu dox amul rek yaa fus la kon nag jom fasaat jom fasaat ndigg yi ak laxasaay bi te bàyyi yomb yi ndax yu yomb yi daf ñuy gàllankoor te jëm ci sëñ bi jëm ci sëñ bi ak pësteef akuk dëggu akoo xam xam naa li ci ëpp sax bu ñu waxee ñoom mag ñi da nga dégg ñu naan waxee ci xam-xam waaye xam-xam weesuwul loo fekkee xam ko dund ko di ko wax loolu rek mooy xam-xam ndax saaba yi yonent bi alayhi salaatu salaam da doon jëf ci seen kanam di wax ñuy dégg ñu bind ko mooy téere yëpp looloo ko fees lool la ñu tudde xam-xam ba ilay yawmi diine loolu moo fi xam-xam mooy li nga fekk dund ko ñu wax ko nga gis ko di waxtaan nit ko ci ko ba ilay la ñu tudde hadiis moom la ñuy tudde mel na ne soññe bi am na solo lool jëm na ci ci solo mu mel ne soññe bi bi ci Baye Malick def ci jëmee ñëpp ci Touba ca kanam moo xam ne liggéeyub Serigne Touba bu nangu la Touba ca kanam liggéeyub Serigne Touba bu nangu la daa daa am ci liggéeyu Serigne Touba yoo xam ne taalibe yi dañ koy def ngir dakk ci bëggu sëñ Tuubaa loolu dafa bari lool moo xam xeeti màggal yi xeeti cant yi lu mu mën a doon loolu dañ ciy dàkk bëggu sëñ Tuubaa waaye nag am ne man ngaa waat ci yàlla ne lii lu sëriñ Tuubaa nangu loolu lu néew li ci liggéey yi Tuubaa ca kanam dajaa bokk loolu Tuubaa ca kanam dajaa bokk nekkal sëriñ bi ci alquran nekkal ko ci ci mbindam mi lu ci nekk ba àndee pas-pas bu wér day daa bokk ci li nga xam ne nit ki mën naa waat ne lii liggéey bi Cheikhul Khadim radiyallahu anhu nangu la jël sab dërëm jox ko sëñ Touba sëñ bu sa daanaan wax ne jox sëriñ Touba am na yoo xam ne sikku ma ko bokk na ca la ma waxoon ne sikku ko mooy ne jox sëñ Touba sa alal da wax ne loolu day wóor na ma ne day yokk barke jox sëñ Touba sa alal sëñ Mor Kebe daa masa am mbooloo mu ñu àndal ñu doon yóbbu sëriñ Touba seen mbay seenu mbay mu mat junni ñu jox ko ak jamono yi ni junni tollee sëñ bi ne leen jox ma junni de dëkkal ma Touba moo ma gënal joxal ma junni mu mel Touba sëñ bi da ngay gis toujours ci waxam ni mu ko fonke woon ak ni mu ko bëggee woon ak ni mu bëggee woon taalibe yi dëkk ca ak ni mu bëggee woon taalibe yi dëkk ca kon mel na ne loolu li muy li muy li muy li muy wane rek mooy bëgg goo xam ne sëriñ bi bëggoon na ko euh, Touba waaye euh, fonkoon na ko ko kon xam naa dañuy dañuy jàll ci euh, Baye Baye Abdou Khoudous ma Massamba Niang moom itam di jëwriñ ci liggéey bi ñu wax ak moom rek moom itam mu leeral dara ci ni Touba ci kanam di liggéeya aku doxinam incha allahu bisimilah Baye Massamba tey jégalu bu baax kàddu yi ñuy yëkkati dafa tolloog ndigal dañ ne jëfe te ndigal caabi la caabi bu ubbee ci bunt bu ëppee du ubbi bu tuutee du ubbi kon nag lii ñuy wax lu ci leer nañ ko sant yàllaak ak sëñ te xam ne du sunu xam-xam waaye lu ci dëngit nu xam ne lu jub rek lañ ci bëggoon ah, Touba ci kanam nag li ma bëgg a tàmbalee ci doxinam mooy ki nga xam ne yàlla def na moo ko xalaat yàlla boole nañu nu ànd lu yàgg a yàgg daa bokk di fanaan di bokk di waxtaan muy sëñ bi mbàkkeem sëñ Fall 99 bi muy bàyyi réew mi mi ngi egg séjour ñeenti at ak 800 ak 800 ñaari at te di mu toog nu dem daayira Samfir Diano ñu ñëw ci kër gi mu ne ma Samba ma ne ko Mbacke mu ne man de damay ñaan Serigne Touba yoon wi mooy sama yoonu mujj ci état bi ndax toll nan foo xam ne Serigne Touba day tànn jiwu te jiwu kat buñ koy tànn da ngay bokk da ngay jege fañ koy jiyee ndax boo jegewut fa jiwu wa ne doo bokk ci jiwu wa ñuy tànn kon nag dama bëgg a ñibbi Touba toog fa liggéeyal sëñ Touba tuma fek fekkib taalibe di ko laaj dara ndax lu ngeen am andi ko kon nag kenn warut a ñëw fii di leen sonal ci jamonoy sëñ Alaaji Baara yëkkati na passeport seru diplomate jox ko ko mu xamal ko ne ko jox ko gone yi ndax man la ma waxoon rek moo ne ci man ñaanatuma sëriñ Touba dem Ndakaaru tudd yittey taalibe yi ndax li ma sëñ sedde sédde maa ngi koy gis mu ne képp koo xam ne bokk nga ci sëñ Touba sëñ Touba sédd la te xamoo lam la sédd xal seen ngaa perte danaa toog Touba gii lu taalibe soxla ma saafaraal ko sëñ Mourtalaam sëñ Fallu toog naa këram ku ñuy waxu Seynu Gueye ab taalibeem yóbbante ma ci moom addiye ba ma demee jox ko ko mag ne ma waxal sëñ bi wax leen sëñ bi mu dem Italie ñaanal leen sëñ bi taalibe yi ay jàmbaar lañ mu ne ko ndax defe nga ne toog fii ñaanal leen mu gaaw nangu gën gaaw ma dem fekk leen foofee xam nga kon ñoom xam nañ fañ nekk kon nun dongay sëñ Tuubaa yi nga xam ne la gën noo ko am ñu wëlbatiku jox ni li war na noo def la gën li gën nag jàpp naa ne du passé fóotaat suñuy xol dàq bëgg-bëgg ci suñuy xol jël alal ji nu yor di ko jox sëñ Touba waaye sëñ bi woote dafa yomb ndax lii nga xam ne mooy Touba ci kanam fi mu sosoo mooy kër sëñ Mourtalaam sëñ Fallou sëñ Mourtala moom sëñ Abdou Fatah mi mu tuddee sëñ Fallou mi mu tuddee sëñ Mourtala moo ma ko wax nee na keroog ba dañoo toog di waxtaan ci mbirum politique ba yàgg sëñ Mourtala jóge ci biir moom sëñ Fall aku tàngar dikki ne leen yéen a ñàkk ngor yéen seen maam jumaam ji ña fay nodd ak ña koy jiite yoruñu luñ lekk ngeen ne fii di wax ci politique lu ngeen jóg liggéey léegi ñi seen jumaay maam ja luñ dundee ca lañ toog waxtaan ne buñ amoon ab social boo xam ne dañuy wër ci kilifa yi ak ci marché di ko laaj di ko dimbalee ñiy jëm ca jumaa ja lii moo sosu ci Touba ca kanam ba ñuy wër ba agsi ci sëñ bi bu sëñ Fallou sëñ bi ne waaw man de jox na leen lam leen jox ma ne man dama ci amoon xalaat ñu ne ko xalaat boo ci amoon mu ne damaa defe ne sëñ Touba lum ñàkk ñàkk wërsëg am na 2 millions yu murit taalibe 14 milliards yi am na ci 2 millions 2 millions yi bu kenn ku ne joxoon weer 1000 francs muy 2 milliards ak 4 milliards luñ bëgg a def ci dëkk bi def ko ci. lii moo indi 1000 francs Touba ci kanam moo tax ma ne 1000 francs Touba ci kanam di 20 euros yi kenn waru koo xalaat a sensé ndax dafa jóge ci gimiñ gu barkeel gimiñ gu barkeel euh, sëñ jiilim sëñ Fallu mii ñuy wax tey dafa maa ma sa wax ne ma Massamba ma ne ko mbake mu ne boo gisatee sa docteur dem ci moom wax ko sa jàngoro ndax boo ko waxut sa jàngoro du la mën a faj waaye am na ñooñ bu seen nopp bi lu ca dugg saafara wu sëñ Mourtala ñëw na nañ fi dem fekk booba sëñ Mourtala dañ ko doon siyaare Pisa ñu xat-xat loo ko mu jóg ñu yóbbu ko Korce Ndeela ba mu demee mu ne ko waaw moom de mbak moom day sax abibu nee nañ ngoone waa Pisa kooku dañoo réew mu ne ko déedéet kala ko wax day yàq bu fekkoon Serigne Touba ñëwru leen doo leen fa gis ba ñuy xat-xat loo bay dal sa kaw xër ci sëñ Touba lañ def bëgg kuñ bëgg moo tax ñu ne mu ne ko noonee bi de loolu nga wax nuru na dëgg mu ne ko dis ku tegee lu ne ngi fi waaye ñoom sëñ Touba lañ am kon nag da nga fay dellusi mu ne kon danaa leen sàkkul bis boo xam ne saa bu ma ñëwatee dafa ñaari bis moo waral bu ñëwatee taale bu ñu demee mu ne bis bi nga ñooñee nga xam ne mbooloo mu dajee lañ su ma fa demee noppalu naa fa dem Touba ci kanam jiit bi nga xamee ne sosu na sëñ Moustapha mais la ma sëñ bi booleel mu dugal ma ca groupe ba yónnee may carte ma commencé ci dox ci Pisa mu jafee lool waaye tey ji xoolal fukki dayee rek juróom benn yi nga xam ne ñooy Touba Toscana takku nañ ànd ci liggéey bi weer yi passé 3 millions dugal nañ ko yu topp loolu positif la waaye xoola Touba ci kanam xoolaatal ni muy doxee jëlale naa jëf yi ñuy jëf ñeenti centre de santé yi waaye social bi ñetti robinet wala ñeent lee ñu xëcc ko fa bu ne 3 millions 500 yóbbu ko ci sañcaan yi nga xam ne dañoo néew doole ku weeru koor ñu dajale ñetti téeméeri yi ceeb ak fanweer ak ñett def ko ci suukar kenn ku ñëw ñu jox la sa dañuy dem ba fekki leen nag ndax ne sa ñëpp nee nit ku koy dimbale doo xeeñ ñi suturaam doo ko wooloo ci mboo di ko wax da nga koy fekk fam ne dimbale ko bu guddee ñu taal oto topp sañcaan yi wër sañcaan kenn ku ne ñi bind sa tur bàyyi la sa kayit ne la bi sàngam ñëwal mbaarum daru xudóos xanaa sa ñëbi bu doon woote di wutub wala muy wutu tur këram la koy woote wala kër ñangam njëkk am kër waaye mbaarum daru xudóos la ñuy def lépp ñu tasee fa kenn ku ne ñu jox la saako ceeb saako suukar boyetu tàndarma jox la 1000 francs ya nga koy paasale waaye bi loolu kuy jaamu yàlla defe naa doy na ci néew gi doole yi ah ñu wëlbatiku ne tabaski gi dañoo war a tabaski comme ñëpp te néew nañ doole ñu jël 2 millions 800 mille jënde ko ay nag toog ba minuit ñu toj ko taal ay oto topp sëñ caan yi sëñ bi naa loolu war naa doy ci ndimbal ñu ne déedéet yére yuñ sol ñu di leen ko dajaleel fa sees ba guddi la ñuy topp sëñ yi di leen ko séddalee kon loolu ba tey discipline mënut a passé loolu kon ñun ñi nga xam ne ñoom la ni nun la ñuy wax ne nooy jiite Touba ci kanam war noo seeral suñu bopp la xam nga li ñii di wax naan weer 1000 euros 1000 euros jàpp naa subaa boo doo xëy see doo ko gis ñu ne la 20 euros at 20 euros at bari wut waaye bari na ndax boo doon laaj tey junni boo doon laaj tey fukki junni juróomi nit jox ko ak ngay laaj fukki junni juróomi téeméeri nit jox la ko lu gën. kon bu ne 1000 francs yi tuuti nan barkeel gi moo am solo tey jii boo demoon ca compte Touba ca kanam lu gàtt gàtt 400 millions nga fa ndax kenn mës naa dégg ci daayira sëñ ci kër sëñ Touba daayira bu dajale 400 millions ñu defar ñeenti centre sant ah wëlbatiku sañcaani maam Cheikh yi fukki at am nañ ko juróom benn musuñu amum ndox ñu xëccal leen robinet te 3 millions 500 la defal ko gël gool weer wu dee sëñ taxa dikk ne lu ba ma ñu ne Touba ci kanam rek laa ci am yaakaar ma soobu ci biir ak juróom-ñeent ñoo xam ne nuñu di ay saadix ma jëfaale leen xanaa koy liggéeyal sëñ Touba ba sëñ Touba dikk ne maa ngi ci biir war ngaa dalum xel barki démb Touba bi piisaay yii bin fa demee nu joxoon ñaari ambulance ak ñaari oto sappoor oto takk na ci jumaa ja ba jeex amuñu luñ ko fayee marché Ocass bitik tàkk na fa ba jeex jigéen ñi ko doon fayee si ñu jox nu ñaari oto sappoor ak ñaari ambulance nu jaayante yóbbu ko kera ban demee sëñ Muntaxa daf ne jëf ju mel nii ba Touba sos ak léegi maa ngi koy door a gis samay loxo la jàpp bi muy wax lii jëf ju mel nii ba Touba sos ak léegi maa ngi koy door a dégg tey ji may wax ak yéen bu soobee Serigne Touba balaa man ñaari weer ci kanam loolee nu yóbbu woon daan yóbbu waat lu ko ëpp fuuf ndax buñ sellalee wan tubaab yi nin mel dugg ci ñoom lu luñ fi bëgg a jëlee rek mën nañ ko fee jëlee tey damay wax ne Touba ci kanam bu ñëpp jàppee mën naa dem ba luñ bëgg Touba nu def ko fa ndax société buñ bëgg Touba rek mën nañ ko fa am ni banque yeeg tey jëb du xodoos mii fa mi liggéey bu ñu ubbi woon usine bu Touba mën na koo seere ay moromam noonu ay moromam lu ne taalibe yaa ngi koy defar kon li ñu war a def mooy nu doxee xalaat doxee xel te bañ a doxee doole eh, maa ngi jéggulu ci guddal gi li ma bëgg a wax bari na waaye jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulah. mel na ne li mu waxee fàttali nañu Touba ca kanam ca tàmbali ba ba ci ni muy liggéeyee li muy dox ci wàllu social loolu rek doy na sëkk ab ab ab ab soññee mooy social bi nga xam ne Touba ca kanam moo ngi moo ngi koy dox di ko def te mu bari lool te lu ci bari lu ci bari rek nga xam ne ñu bari xamuñu ko loolu leeral na ci lu baree bari am gi solo gi ma am solo waaye bàyyi xel gi ñu bàyyi xel ne Serigne Touba liggéeyal ko yëmul ci di tabax ay bâtiment ak defari tali waaye nit ñi ci boppam Sëñ Tuubaa daa waxoon Cheikh Moussa ak Cheikh Mamadou Fall ci nit ñi la leen liggéeyloo ndax daa ñaan boromam mu doon mbégum jirim yi waaye doon bégum jullit ñi rawatina way néew doole ji Cheikhul Khadim radiyallahu anhu xam ngeen ne bokk na ci li ko yàlla jagleel mooy néew nit ñëpp ci moom lañ daan xeetali ko bi mu fiy nekk li ko Cheikh Sidi waxoon ne ko wa ma xaybuhu illa ibadatu rabbihi wa nafxul wara fi subhihi wa masaahihi loolu rek moo nekk ci moom mel na ne message boobu Touba ci kanam dégg na ko ndax bu fekkee ne moo ngi doxali nii muy doxalee di def yoo xam ne day delluwaat ay ay njariñ yoo xam ne day delluwaat ci nit ñi direct nga xam ne amul intermédiaire ci diggante bi loolu dayoon na mu tabax ay centre de santé yooyu yëpp day dellu ci nit ñi waaye fekk nit koo xam ne amul lu lekk tey nga yëkkati loo mu lekk jox ko loolu dara melul ne moom te suñu ba wax na ci Masaalikul Jinaan ne benn tibb benn tibb boo jox nit ku xiif moo gën nga tabaxal yàlla junniy jàkka loolu xam gu mu ko xamoon tax na moom mësuta nangoo denc dara lu ñëw rek da koy joxe ngir noonu la ko yàlla noonu la ko yàlla bindi woon mel na ne kon ku koy liggéeyeel it bokk na ci li gën a jiitu ci ni Touba di ci kanam doxe mooy fexe ba njariñ li yàlla barke bi bi bi bi sëñ di joxe te di ko jox taalibe yi ñi man ñu yóbbaale ko ñaan foofu liñ ciy soññee rek mooy ne taalibe bu ne war ngaa def fexe sa dërëm di dem ci Touba ca kanam ndax xëy na yow ñaar fukk wa nga am wala un euro wa nga am mënoo ko woon a jël dem fekk nit ku mu yeew doole nga jox ko ko waaye boo ko boolee ci Touba ci kanam sa morom def noonu sa def ñu boole ko mu doon lu sakkan ñu dem jox ko ak néew ji doole yiw wala ci yalla bindal ba ilaa yawmil xiyaamati yuumba di la fekk ci sa bàmmeel te loolu def gi ko def moo la ko may boo ko defoon rek nag moom nga xam ne da nga ko joxe woon sax mbooloo mu dajee joxe seen alal ni ko ñeneen association yëpp defee di dimbali nit ñi njariñ lay doon waaye rawatina nag li tax mu gën doon njariñ mooy jaarale gi nga ko jaarale ci Cheikhul Khadim loolu bari na affaire la moo ne nit ki li nga def yow dong ci sa jëmm ak li nga def te jaar ko ci ku mel ne Sëñ Tuubaa da bokkul ndax day mel ni Sëñ Tuubaa ci boppam moo ko defal boppam kon loolu tax na mu doon lu kawe Touba ci kanam di liggéeyee noonu mel na ne ñoo ngi toog ñoo ngi toog ak yeneen i jëwrin toog ak soxna yi ñu defa war a defaat yeneen i plateau incha allahu xam naa dañuy taxawlu fii waaye ñoo ngi ñëwaat incha allahu ci nag ci ñeneen bokk ci gën a faram-fàcce muy jëwriñ ñi ngeen gis ñu toog ak ñoom ci nan lay liggéey bi doxe étape par étape ñu war wàllu finance ñi yor wàllu coordination ñu yor wàllu wàllu wàllu coordinateur yeeg maanaam lépp liggéeyu Touba ca kanam ñu jéem koo nag waxtaanee point par point incha allahu ñoo ngi ciy ñëwaat ak ci yeneen jotaay xam naa dañuy jàllaat ci yeneen jotaay incha allahu ba ca kanam ñu doog a dellu si waat wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala Touba ca kanam wajalilahi maskani Touba dunya bi jaayi xayri ma nabaat Touba ca kanam wajalilaayi maskani Touba baat misras mi bi jaayi xayri ma nabaat Touba ca kanam wajalilaayi maskani Touba baat misras الجامعة بجاي bi seen mbokk yi nga xam ne ñoo bi xam naa ñoo ngi toog ak Serigne Nar Wade mu jóge Milan moom itam di ci liggéey bi xam naa koy jox rek mu mu soññee ci liggéey bi ak euh, euh, liggéey bi Serigne Touba bi nga xam ne mooy Touba ca kanam ak fi mu toll nii rek moom itam woo ci nga xam ne ñu féete ci sëñ naar bismillaahi rahmaani rahiim bi ah, ñu fas yéene dugal ay kàddu rek kàddu yi nag li ci jiitu mooy sant yàlla suñu borom bi mu ñu boole ci liggéey bi di Touba ci kanam ah di tàmbale rek ci barkeb maam Cheikh Issa Diène ah wàcc ci sëriñ Abdou Latif Diène xalifa général di kullu Diène ah di santam sama sëriñ sëriñ Sidinaar Diène nga xam ni ñoom ñoo ñu lépp lu ma nekk rek ñoom ñoo ma ci baax leen sant lu baax ndax ginnaaw yàlla wéyee ñooy sama bunt ci sëriñ Touba muy sëriñ Sid Diène moom sëñ Naar Diène kon ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaare a ah, di sant bu baax ci jitaay bi biñ ci suñu borom boolee man nag ah, damay wax ci turu mbooloo ndax dama bàyyi mbooloo mu bari masala muy mbooloom euh, Touba Milano ak li wër Touba Milano yi Touba di su safar gépp ba ci Lignano Calepio Sondrio ca Sane Maderno Korsiko Touba Moussa Touba Sahadatou Lab mboolem ñi nga xam ne rekk ñoo ne ci pedo montana bi yàlla dafa def am na ñu ma àndal waaye xëy na jotuñoo egsi fii kon ñoo ñëpp rek ma di waxaaleel ci liggéey bi nga xam ne mooy Touba ci kanam ndax bi ma ñëwee maa ngi feggoog sëriñ Diaw moom sëriñ Fallou nga xam ne yàlla def na ñoo ànd ak sëriñ Sam Sey mu Touba Milan ak sëriñ Ousmane kon ñooñu lañu àndal teew ci bis ak Abdou Wahab ak mboolem waa 18 safar yi kon ñu ngi sant bu baax. li nga xam ne nag moom la wax ci Touba ci kanam ñi nga xam ni dugg nañ ci miin nañ ko daanaka taxatu ñuy wax ñi tax ñuy wax moo ñi nga xam ne xëy na ñu ngi koy dégg te xëy na xamaguñu nu mu demee dëgg-dëgg ñooñi nañu amal seen bopp fulla amal seen bopp fayda ba seet ku ci teqantal ci Touba ci kanam ndax Touba Ca Kanam moom Serigne Touba kese la jur raxul dara kenn ku nekk fa la fa la yàlla féeteleel man nga fa liggéey liggéey ba ka nga xam ni mooy sa bunt Serigne Touba gërëm la du tee nga dugg ci liggéey bi nga xam ne mooy Touba Ca Kanam ndax Touba Ca Kanam xeebul nga indi fi sax kenn nit xeebul nga di fi juróomi nit sakkantuma ak mbooloo ndax bu dee fa ma féete di Touba Milan dañ fa nekk ak suñuy sëriñ ak suñuy jëwriñ ñu jiital ci sëriñ Moustapha Mbacke imam bu Milan ah, ah, di ci teg sëriñ musa Dieng bu Milan di ci teg Baye daam ngay mi nga xam ni mooy président daayira ba Touba Milan ak mboolem mag ñam fa nekkal ak membre yi daayira Touba Milan yëpp ak li ko wër ak di si safar kon ñun ñëpp ñu ngi leen di woo ci Touba ci kanam ndax liggéey la boo nga xam ne bii ah képp ku ci duggultam tam yaakaar naa ne rëcc rek nga ci am ndax Touba kenn nit ku nekk war ngaa xalaat pour defar Touba ca Touba ca kanam li nga xam ni dafa génn ci làmmiñu sëñ Abib loola rekk lañ ca fas yéenee doxal mooy wee oro yi nga xam ni tuddal na ko ci aw làmmiñam ak wiit oro yi nga xam ni dañ ko cay def muy féete ci fere yi nga xam ne wee oro yooyu maanaam dara du ko toj lépp ci diggante ciment ak fer ak la mu war a war a àndal cooca lay jëm moo tax ñu dolli ci huit euro yi moom lañuy ñu kat quatre membre bi kon na ko taaliba yëpp xamee noonu man de maa ngi ci woo ñëpp képp koo xam ne ki duggoo ci ñoo ngi lay woo ndax bu dee li féete ci Touba Milan Sëriñ Amet Ndiaye bari bi ngeen xam moom yor na ab carnet ca ku ko jot téléphone wala nga dem daayira Touba Milan dee la ci jox ay firnde yu leer sëriñ Ibrahima Kebe Diop sesto moom tam yor na ci ab carnet képp koo xam ne bëgg nga ci lu leer boo demee di la ci wax lu leer lu leer naññi daayira sëriñ Touba bi nekk Milan tam képp ku fa ci dimaas ci ngoon wala alxames ci guddi boo laajtee Touba ci kanam di nga ma gis wala nga gis ñooñu nga xam ne ñoom laa tudd léegi kon Touba ci kanam eh, li ci am solo mooy nañuy soññe rek di yaatal képp koo xam ne kii danga nga ca waraan de amal nga ci de eh, xam-xam bu des ci nu muy doxe ak nu mu tëddee boo gisee ñooñi ci diiwaan ba nga xam ni falaa jóge dina la ci wax lu leer naññi bu dee diiwaanu Mounsa boo gisee Abdoul jaañ Diagne dina ci leeral ba nga am ci leer naññi ma ni taalibe yi jóg leen ñu laxasu jëmee Touba ca kanam ndax li ñuy laaj bariwul ku yàlla may doole man nga ko ku néew kàttan man nga ko mooy ñaari téeméer par weer boo liman fukki nit yaakaar naa juróom-ñett ñett suñu borom du leen ko xañ ba ñuy nag ku ci def li ñuy wax jël ndax gis ngeen biñ ko tàmbalee muy hôpital bi nga xam ni bokk na ci ñeenti hôpital yi ñu tracé woon bi nga xam ni moo ci jëkk a sotti bi mu demee bay noppi la jenn jëmu jóg taxaw saytu équipement bi ci def bi ci nekk lépp mu def ko ci kon loolu lépp Touba ci kanam la àndal xeebul lu waaye am lu bare bari waaye tam xeebul tam lu waaye am lu mu néew néew kon ñun ñëpp daal maa ngi leen soññi man naar wàdd di leen soññi ca fës yéene sama dund gii ba keroog ñu may rob moo xam Sénégal laa nekk moo xam état laa nekk fas naa ko boole ci sama liggéey ci sama dund moom laa fas yéene kon ñu ngi leen di nuyu rek ah te di leen siyaare ca xam ni liggéey moom lépp lu koy xajamal rekk kenn ku nekk na nga sa bopp te nga moytu loola jërë ngeen jëf wa salaam. borom kamaal yi jërëjëf Baye Naar am na solo lool. bisimilah maa ngi bi waxtu ko waxaat waaye mënoon ngeen a a puli waaye gis ngeen ni ah, mu ko soññee rek yaa ngi Mina ak li ko wër mel ne am nga ñu la jox ñoo xam ne. loo bëgg a xam ci Touba ca kanam man nga ko cee xam man nga cee dolli ko bu doon waxtu bi sax xëy na naa gën a leeral information yi yëpp incha allah waaye daf mel ne waxtu yi moo ñu moo ñu tënk ak xaal na mbokk yi di ñu a ba ba léegi ñoo ngi sant bu di ñaan suñu borom nangul liggéey bi te lépp rek doon doon liggéey bu sell boo xam ne Sëriñ Tuubaa dana ko nangu eh, te dencoon ñu ko fa yàq àggul wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu aouzu billahi min asheytaan irajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xayra xadimihi wa ummatihi wa sallama taslima ahmadu qaala sabtida bi basmala ma asbilan musalliyan mahamdala inni bi amdillahi asaari wa xidatan wal fiqhu maliki tariqatul xadimi si nahjil xawim tariqati hada siratu mustaqim wa innani xadimu xadimu rasul wa tilka simmatun biha arjul usul asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki talibe yi ñoo ngi leen di siyaare te di leen baal àq te di leen ko baal di leen ndokkeel ci bis yu tedd yu weer wu mag wi nga xam ne ci lañ nekk muy weeru Cheikhul Xadim radiyallahu anhu di rabihul awal waaye di leen siyaare di leen ndokkeel it ci bés bu mag bu tedd bii nga xam ne ci lañ nekk te mooy bésu Touba ca kanam ñu ko defee fii ci Touba Varese euh, mbokk yi woote ko wax Touba ca kanam xam naa boobu ba léegi yéen a ngi gis plateau yi nga xam ne jot nañ koo defagoon muy jàll ci ci ci ci mag ñi ci soññee buñ ci soññee bu am solo waaye ci soxna yi tey nag ñu ñëw toog ak ñi nga xam ne ñoom la yàlla sëriñ bi dogal yàlla dogal liggéey bi nekk ci seeni loxo. ñu yor ko fii ñoo ngi toog ak suñu jëwriñ di jëwriñ ci liggéey bi muy sëriñ Ousmane Mbaye ak sëriñ Ibrahima nga xam ne moo féete fële ci Toscana bëgg a waxtaan ak ñoom ci liggéeyu Touba ca kanam bu ko defee mboolem koo xam ne da ngay dégg Touba ca kanam te xamoo lan mooy Touba ca kanam xamoo aw doxinam xamoo lu muy liggéeyee incha allahu ñu fas yéene dikk ak ñoom ci loolu ñu leeral ko ba mu leer ba ku ko doon dégg da nga xam lan da nga am maanaam ku xool ku ne da nga xam ne da nga mën a am boo fa jógee ba ku laajoon lan mooy Touba ca kanam nga mën ko jox information yoo xam ne yu leer lay doon yu wér lay doon xam na damay njëkkee ci Serigne euh, Serigne Ousmane Touba ca kanam buñ ko waxee mooy laat Touba ca kanam xëy na tur yu moom léegi li ma ko wax ak soxna yi boo demoon lawhul mahfuz si loolu nga fay fekk Touba ca kanam Touba moom kanam rek la jëm incha allahu Euh, waaye Touba ca kanam en tant que organisation wala tax en mbooloo mu dajaloo Touba ca kanam mooy lan nan lay liggéeyee ci senegal ci biir Touba ci biir Sénégal aw doxiinam ay ay ay ay ay ay ay ab jëflanteem ci wàllu social. ci wàllug yaatal ko yooyu yëpp lañ bëgg ngay leeral ñu ko incha allahu sëriñ Ousmane aousubillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal di leen baalu àq te di leen baal di ñaan suñu bi boolu ñu jéggal tey jii ñu nekk ci fii ci Touba Varese ci bis boo xam ne nii bésu Touba ci kanam la ñu ñëw fi di fi sant cheikhul xadim ci sant cheikhul xadim googu ñu ciy jëkk di ñaanal cheikh Muntaxa Basiru Mbàkke mi nga xam ni moo fi nekk tey xalifa cheikhul xadim suñ borom bi yàggal ko fi lool te wéral ko ba naal yi nga xam ne nii naal na ko mu ànd koog murid yëpp surtout ànd ko waa Touba ci kanam ba liggéey bi nga xam ne nii e, song na ko ñu àndandoo def ko in teg xeer wi inauguré ko ànd kaak moom ak murid yëpp ci barke Cheikhul Khadim waa laaj nga lu am solo euh, Touba ci kanam euh, dafa nekk tur woo xam ne nii wu jaaxal ñëpp la dinaa ko wax comme ni ko sëñ Abdou Karim waxe ndax Touba ci kanam mu ni man daal xaw ma lu mu doon rek ndax dafa nekk euh, mbooloo mu jug mbooloo mi duñ jugee di saytu ak di xool Touba lafa war a am te amu fa xool Touba la fa am te jaaduwu ca ñuy xool loolu lan moo ciy indi saafara loolu nag tàmbaliwoon ci ay groupe bu whatsapp ay waxtaan waxtaan woowu nag ba muy dem ci mbooloo mi ñëpp di ko rafetlu ñu ci saluer de passage président bi di sëñ Fallou Ndiaye mi nga xam ni xalaat bi ci moom la jóge bii reportage yooyu di jàll ci whatsapp yi kilifa yu baax yi gis ko ba dem ba mu àgg ci Cheikh Abibou Mbacké moom Cheikh Mohamed Fadal ba mu génn ci xalaatu ñaari million murid yi ñaar téeméer weer wu dee buñ ko defoon loolu dinañ mën a saafara li nga xam ne nii moom la Touba bëgg ndax kenn napp nattabliwul ni Touba buñ ci xaar kenn li nga xam ne nii bëgg nañ ko ci duñ ko fi def ndax yàgg na nit ñi nga xam ne ñoo mujj juddi sax gis na loolu xam ne ndax euh, jumaay Njaareem jumaay Touba raay bi li ko fa indi lépp ci ñaar fukk ak juróom-ñett yooyu sëriñ bi woote woon ci la loolu amee. kon nag Touba ca kanam lii nga xam ne nii sëriñ Abibou da ko cee andi mu nekk loo xam ne nii yërmande lañ koy wax léegi euh, Touba ca kanam xam na ni kenn mënul def dara ci àdduna. te doo koy structuré maanaam loolu moo tax sax jëmmi association bi ñëw ci ndax juridiquement faw nga mën a am boo mënee ibbi ay compte ci banque war a denc xaalis il faut nga am noo ko ci noo ko fay dencee te doo ko def ci ay turu looloo tax kon association bi am kon Touba ca kanam am na ay compte banque yu bëri Touba ca kanam tam am na ay commission maanaam gannaaw comité directeur bi am na commission euh, commission finance am na commission sociale commission logistique scientifique et culturelle maanaam lu ci bëri loo xam ne ni liggéey boo xam ne nii rek laaj na Touba ca kanam mu war a am ci biir Touba am na ay commission yoo xam ne nii ñu koy saytu pour mën na fexe liggéey bi nga xam ne nii moo war ci dëkk bi ñu ànd koog moom loolu daal Touba ca kanam yaakaar naa foofu mooy fi nga xam ne nii teg na fa ay tànkam te loolu boobu ba léegi ni ngi ciy liggéey nga xam ni Euh, liggéey bi leer na leer goo xam ne nii bépp dërëm sax boo xam ne nii dugg na ci biir compte yi bala moo génn fenn di dem ci benn liggéey loola des na ko waxtaane ñii signataire ci compte yi maanaam ñi mat nañ juróom te Serigne Abibou ci la bokk jëwriñ ji Serigne Abdoulahat Abibou ci la bokk ak euh, président bi ak euh, vice président bi ak waaw kon loolu mooy li nga xam ne nii Touba ca kanam noonu la yaatoo noonu tam leen ko sécuriser Touba ca kanam tamit képp koo xam ne nii yaa ngi ci àdduna bi bëgg cee bokk am nan ay jàppandal yu bari yoo xam ne nii tam def nañ ko ci muy li nga xam ne nii mooy ci wàllu Orange Money ak ay Tigo Cash ak ay e-money yooyu yëpp fàggu nañ ko liggéey ko liggéey bu mucc ayib ba nga xam ne nii mu ngi ci biir liggéey bi waaw. jërëjëf jërëjëf Serigne Serigne Ousmane mel na leer na ku bëggoon a xam lan mooy Touba ci kanam mel na xam nañ ko. bi mu doonee aw tur niñ koy structuré ba def ko association. am nu ñuy liggéeyee am ay commission di liggéey ci banque yi léegi nag liggéey yi Touba ca kanam dëgg la xam nañ ne mooy fexe jëmale Touba ca kanam mooy saytu li mënta ñàkk ci Touba waaye am na li ñuy wax ay ay awwaliyaat muy ay ay ay ay yoo xam ne ay mbir yoo xam ne ñooy nécessaires yi ñooy yi mënta ñàkk ñooy ay ay primaires yoo lañ koy xam wax xam ma waaw mooy mooy primaires yi nga xam ne moom lañ jëkk a tàmbali nga xam ne fii la ab liggéeyam tàmbali loolu yi la ñeexal fi ne nii Touba kanam ab liggéeyam maanaam bu doon def bilan nga xam ne fi ne nii dafa am programme bu muy liggéeyee yi nga xam ne ci lay liggéey yooyu it nga ñëwal ñu ci ak wàlluk social ndax Touba ca kanam moo ngi dox ci wàlluk social yu mel noonu liggéey yooyu nga xam ne Touba ca kanam mu ngi koy liggéey waaw xam nga social ku ko wax mënoo wax te tuddoo ñi nga xam ne nii danoo daw bàyyi seen i këri ndey bàyyi seen i këri baay ñëw ci Touba ñëw dëgmal si sëriñ bi te ñooñu amuñu ay ndox am na ci dëkk yoo am na ci ay sancaan yoo xam ne nii ñii ñi ngi naan mën na am nañ fa lu mat fukki at ñii fukki at ak juróom yoo xam ne amuñu woon ndox te Touba ca kanam li mu dugal ci alal ren ci ñi nga xam ne nii ay sancaan lan amuñu ay ndox ñoom ñëpp ñu xëccal leen ak ndox ànd koog waa maawu rahmati xam nga loolu ndox moom mooy li ñuy wax lu indispensable mënul ñàkk te liggéey boobu Touba ca kanam da ko boole ci yi nga xam ne nii yu liggéeyam yu jëkk la yu mu war a def boo ko gisee tam yaa ngi gis ci wàllu santé ñi ngi teg sunu ñeent yi nga xam ne nii mooy post de santé yi nga xam ne nii benn bii nga xam ne nii daanaka noppi na léegi ñaar yi ci des tàmbali nañ ko nga xam ni danoo bëgg fépp fu nit nekk xam na ni te amul wér-gu-yaram loola day xaw a euh, am ay jafe-jafe ba tax na ci wàllu santé bi nga xam ne nii poste de santé bi nga xam ne nii moo nekk Touba Lansar poste de santé boobu noppi na te def nañ ci boo ko dee xool dina mat cent cinquante million te euh, équipement yi nga xam ne nii keroog gis ngeen conteneur yi mu ñëw ñu ci Eh, jaajëfal sunu mbokk taalibe yi nga xam ne nii itam ñoo ko dox muy waa fondation C221 nga xam ni euh, médicam li nekk ci matériel médical bi war na toll ci deux cent soixante onze millions kon Touba ca kanam ci wàllu social tam ñëpp xam nañ ni kenn du tudd sëriñ bi te tuddoo jumaa ji tuddoo ñi nga xam ne nii ñoo nekk ca jumaa ja ji jàng alxuraan ñooñu nga xam ne nii ñoo ña fa nekk Touba ca kanam ba mu sosoo ba léegi danoo warlu ak ñoom maanaam ci seenug dund loo xam ne nii weer wu nekk dañ koy def muy waa commission sociale boo xam ne nii moom rek mooy saytu loolu gis ngeen ci wàllu koor gi am na journée bu mag tam boo xam ne nii dañ koy def ci koor gi di ciy dajale lu mat ay ñaari junniy nit di leen jox ay ay ay ceeb ay ak dund bu korite gaa ñu leen di jox ay yére kon loolu ci wàllu social loolu Touba ca kanam mi ngi koy def yu bare bare bari def na ko ci jërëjëf Serigne Ousmane <coughs> mel na la leer na kon xëy na kuy dégg Touba ca kanam Touba ca kanam yëmul ci tabax ay bâtiment yëmul ci defar ay làmp jugul yit ngir rek dëkk bi set waaye nit ñi ci boppam loo xam ne day dem ci nit ñi direct nga xam ne nit ki amul ëpp dund ñu dimbali ko ci wàllu social rawatina li nga wax léegi mooy xam ngeen ne nit ki suñ jubaa daa wutoon ñoo xam ne ñoo koy taxawul ci jàkka yi ci jumaa yi waa daari kaamil waaye loolu liggéey bi leen sëñ bi sant tax na mënuñu koo booleeg yeneen liggéey yi Touba ca bu jugee nag warlu leen ab dund loolu day jàppandal liggéey bi sëriñ bi kon mel ne Touba ca ngi liggéeyal sëriñ Touba ci fànn yëpp ndax bi mu fi boppam yooyu moo ko yoraloon boppam boppam daare kaamil yi ña ko fa daan liggéeyal wala ñi ko daan bindal alxuraan moom moo yoroon seen dund moo yoroon seen lépp di ko defal kon Touba kanam mel na ne moo ko wuute ca loolu kon mel na ne daal liñ ci bëggoon a xam ci Touba ca kanam képp ko xam ne bëgg nga cee bokk wala noo noo lan yaay ko daan dégg te xamoo luy Touba ca kanam Touba ca kanam leer na sa bopp weesuwul mooy jéeme wuutu Serigne Touba ci liggéey bi fi nekkee woon jëm ko wuutu ci liggéeyu dimbali nit ñi xettali leen ci wàllu saahir waaye jim koo wuuti ci dëkkam ba lépp loo xam ne ab dëkk war na ne mel ba sëñ bi li mu waxoon ne jumaam jiyee ak dëkkam bee ñooy doon ab bàkkoom ñu jéem a jëmbal loola ci kaw suuf mel na kon Touba ca kanam loolu rek mooy ab liggéeyam te loolu yii nag ni sëñ li nga wax léegi Serigne Touba waxoon na ne bi muy woote jumaa njëriñ ñaar fukk ak juróom-ñett yooyu daa waxoon ne dama bëgg loo leen soxlaate ci seen mbir mi ngeen defe ko noonu ndax ku manal mënal kat sañal la te yàlla nay doon ko la war a sañal kon mel ne ne buñ demee ba am lu Touba ci kanam indiwaat lu am solo muy ne murid yi bu ñu demee ba jàpp ne liñ sëñ Touba bëgg ci Touba ab état ko cay def wala ñu koy xaar ci état loolu loolu ak yëfus la woon ci murid muy déggin woowu rek dèjà déggin la woo xam ne jaarul yoon ci murid ndax murid yi fi nekkoon mosuñoo séntu ci dara ceeb état mosuñu ko yaakaar ci dara kon bu ñu demee ba mu am murid di xalaat dara Touba ba ba état yi sax mel ne li ñu ci jàpp otage xam ngeen ne Touba ci en tant que population ak cib dëkk doon euh, deuxième ville du senegal bu fekkoon téeméeri àq la am. dix pour cent yi sax joxuñu leen ko waaye ànd loolu lépp ñàkk xam gu nit ñi ñàkk xam tax na ñuy ndamoo liñ fay dafa kus néew te li ci ëpp ay projet lay doon rek yoo xam ne dañ koo bind lañ leen waroon def ko kon Touba ca mel ne ne del siwaat na indiwaat idib murid yi ne dëkk bi ñun ñoo ko war a defar murid yi suñ tubaay ñoo war a def ci dëkk bi état moo war di daw ci suñ ginnaaw waaye ñun waru ñuy daw ci ginnaaw état benn état ndax suñ tubaay loolu lañ jàngaloon loolu lañ jàngaloo kon mel na ne am na solo lool xam naa dañuy jàll ci Ibrahima ngir waxtu wi gi mel noonu moom itam mu féete fële ca ca Toscana yore fa liggéey ba Touba ca kanam dañuy ñëw moom rek ci laaju Touba ca kanam ni muy liggéeyee ci wàllu wattu kaana doxiin wa ak liggéey ba ak soññee rek lenn ci liggéey ba ci ndaw ñeek mag ñi insha allahu bismillah sëriñ Ibrahima ah, bismillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah barke si Amadou Khadim ñoo ngi siyaare bokki taalibe bi yëpp waaye di jiital ci bi kii nga xam ne mooy ci jataay bii nii moo fi nekkal si Ahmadul Khadim muy Alaaji Tàkku Mbakke waaye du nuyu rakkam ju baax ji nga xam ne tam gannaaw yàlla Touba ca kanam fu mu yegg rek moom moo ko fa yeggale muy Serigne bu Mbakke bu Cheikh Mouhamadou Fadal waaye du nuyu Serigne Abdoul Ahad mi nga xam ne tam yàlla dogal na ne mooy seen jëwrin te teew ci jataay bii tey ñoo ngi siyaare bokki bi yëpp du nuyu ñëpp rek di ñaan yàlla tam lëggéey bi suñ borom jàppale ci. te dëppale ñu ci ak ngërëmal Cheikh Ahmadoul Khadim waaw xam naa loolu nga laaj ñun ñu ngi féete ci wàllu toskaana nekk faak nag sunuy jëwrin sëriñ Massamba Niang waaye ci njiital sëriñ Fadidou Mbacke bu impoli waaye nekk fa tam nag ak suñuy wax Cheikhouna Ndiaye ñu bokkandoo nekk foofa ca liggéey ba di yaatal liggéey bi foofa di doxal liggéey bi foofa noona liñ doon wax tam mooy système mu Touba ca kanam moom li ci sëñ bi waxoon rek Cheikh Mountakha ñoo koy ñaanal yàlla sunu boroom mu yokk aw fanam te bàyyil ñu ko fi ci kàttanu yàlla ak barke Cheikh Ahmadou Khadim ba yaakaaram bañ a tas ci liggéey bii nii ñu ànd ñun ñëpp bokk kook moom jëmee ko ci kanam lam waxoon ne rek cawarte la wolante la waaye ak dogu la ñun noonu rek moom lañ nekk ci Touba kaana moom la ñuy wootam taalibe yëpp tam ñu ànd ceeg ci noona te loolu tam volonté affaire volonté la moom lañ def ñun suñu wàllu bopp jógal suñu bopp seeti taalibe yi yanu liggéey bi dem ci kër yi dem ci gox yi guddi ak bëccëg ñu boole suñu lépp jëme ko ci Touba ci kanam loole nag mooy li nga xam ne moo dimbalee Touba Toscana ba yàlla may ko daraja bi nga xam ne maanaam li ma bëgg wax mooy fi mu toll ci Touba ci ci Touba kanam waaye desu ko damoo waaye dañuy wax ne bu buñ ne tubaa tubaa moo man moo man ci senegal ñu ne ci biir Europe ñu ne ñu ne ñu ne ñu ne Italie moo ci moo ci gën a kawe waaye ñu ne ci biir Italie itam ñu ne Touba ci Toscana moo ci gën a kawe kon loolu ak cant yàlla la waaye dañ koy ñaanal tam ñëpp rek du ndam waaye nag ci liggéey bi ñu def rek bi am loolu tam mooy boole goo xam ne gii boole nañ ko sunuy bopp nangoo sonn guddi ak bëccëg. di dem ci taalib itam di leen leeral taalib itam wax leen lan mooy jub jublu jublu Touba ca kanam waaye wax leen tam lan mooy bëgg-bëggu sëriñ bi ci lii la ci lañ àndeek ñoom waaye fekkoon na nag yàlla dogal na ne toskaana ku ne mas na koo dégg ci liggéey fi Amadou Khadim dañ leen wax ne leen yéen bi Touba toskaana bi Touba ca kanam ñëwee dafa mel ne dafa copier seen jëf di ko jëf ndax moom li ngeen fekkoon ngeen di ko def bi Touba ci kanam ñëwee moom lay def te loola mooy lan mooy liggéeyal Serigne Touba ci biir Touba liggéeyal Serigne Touba ci biir jaami jaami yàlla yi waaye liggéeyal Serigne Touba tam ci biir taalibe yi ñun bañ ñëwee itam lool lañ fekk foofa noona ñu taxawal loolu ànd ca loola di ca dox di ca guddi ak bëccëg nag ba yàlla defal ñu suñu defal ñu ci taw feex muy lépp loo xam ne lii mooy fédération Touba Toscane bi ñu doon dégg nga xam ne ñoo fa defaroon lamp ya defaroon fa morgu ba manoon ci Matlabul Fawzayni waaye defar fa benn pédiatrie barki démb lu toll ci 15 jours ci gannaaw àndandoo ñoom ñëpp ak daayira ñu àndandoo ñëpp ñëw fekk si waat Touba kanam wëlbati ko dañu ànd ak Touba ca kanam donte nag taalibe yi ña ngi ca doon dox taalibe yi ñoo ci doon dox waaye gën nañoo nag federawaat seen bopp nag ngir gën a bégaat ci liggéey bi tam nag ngir dellusiwaat ci liggéey bi ba tax na loolu moo tax tam ñoo ngi ci occasion ci bii ci liitam di woo bépp taalibe boo xam ne bii ak gox boo ban di nekk ci biir Toscana waaye nag an général tam biir Italie gépp waaye ci biir àdduna bépp ñu àndandoo képp koo xam ne kii bëgg ngaa jàpp ci liggéey bi ak côté boo ci mën a jàppee ak noo ci bëgg a jàppee rek ñoo ngi lay tàllal loxo di leen woo guddi di leen woo bëccëg di leen wax ne liggéey bi du liggéeyub kenn waaye liggéey bi liggéeyub Cheikh Ahmadoul Khadim la liggéey bi dañ cee yaakaar ngërëmal Cheikh Ahmadoul Khadim te teem nag murid yi am na njot ci ne ak yaakaar ju wér ci ne dees na ci fekk ngërëmal Cheikh Ahmadoul Khadim ndax nii mu demee ku ne gis na ko tey ñëw tey ci jataay bii tey da xam ne liggéey bi bu ko Sëñ Tuubaa nangu doon jataay bi du mel nii tey ku fi nekk tey sa sedd na te xal sa sa sa sa kóoluteem gën naa dëgër gën ngaa jàppat Touba ca kanam tam aw mbooloo moo xam ne bii ci boppam lépp loo xam ne suñu borom mas na koo digle ci lu baax boo ñëwee jataay bi da ko fekk dundale sa alal mi ngi fi jokk ak mbokk mi ngi fi waaye tam nag dimbale ni suñu wàllu bopp mi ngi ci biir waaye tam ak mbokkoo tam ñu ngi suñu biir loolu lépp Touba ca kanam defal nañu ko loolu moo tax nag ñu wëlbati ko tam di ci woo bokk taale bi yëpp di ñaan ñoom ñëpp ñu ñëw jàppale ñu ci waaye di woowaat tam Touba Toscana ñoom ñëpp ñu gën a boolewaat seen bopp gën a àndandaat jàppaat ci liggéey bi te xam ne liggéey bi liggéey bi Serigne Touba la ñoom lañ doon def rek moom la Touba ca kanam def li Touba ca kanam def tam moom lañ doon def kon nag ñoo ngi ciy waat taalib yëpp waaye di ci waat jullit yëpp tam rek di ñaan ñu àndandoo ñun ñëpp jëm ca kanam rek baax na jërëjëf. jërëjëf jërëjëf Ibrahima jërëjëf Serigne Ousmane mel na ne sant nañ bu baax ci leeral yi ngeen ñu dox boo am solo ci Touba ca nu muy liggéeyee ak mbokki tuskaana yee ak nañ cey góorgóorlee ñoom it ñu encouragé leen sant leen bu baax ci doxin wi te xam ne liggéeyub Serigne Touba it noonu rek la kenn du ci wàcc mukk te suñ Touba bu fekkee mooy sa yitte lu ñëw ngir Serigne Touba rek danga nga ànd moom suñ moom na suñ suñ Touba doon suñ objectif lu man luñ mën a tudd Serigne Touba te muy jëmale Serigne Touba di ko may ndam ca kanam rek nañ ca dugal suñu loxo ànd ca na nag luy jëmale Touba ca kanam ni ma ko waxee loolu moom suñ Touba yi membre bu njëkk bi moo ko sos moo ci njëkk a dox moo ci njëkk a def lu jëmale Touba ca kanam moom Serigne Touba Serigne Touba Serigne Touba ki ci njëkk a def lépp moo ci njëkk a def lépp kon nag ñoo ngi sant bu baax di leen taxaw xam naa dañuy jàll. Touba ca kanam. wajalilaay Touba ca kanam wajalilaayi maskani Touba baat misrasmi abijaayi xayri ma nabaat Touba ca kanam wajalilaayi maskani Touba baat misrasmi abijaayi xayri ma nabaat